Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais à travers vous saluer la communauté nationale et internationale et me joindre aux nombreuses voix qui ont constaté et condamné ce qui se passe, les événements graves qui se déroulent actuellement au Sénégal, dont les moindres symptômes ne sont pas la fermeture, la, le retrait, pour dire, définitif de la licence de Walfadri ainsi que la suspension qui vient juste d'être levée de Internet. Et tout ceci procède d'une situation dans laquelle le président Macky Sall a choisi, avec un petit gang de députés et de membre de son parti, de perpétrer l'un des coups les plus odieux de l'histoire politique du Sénégal. Car assurément, il s'agit d'un coup et tout le monde, pour une fois, condamne sans réserve ce qui se passe. Le président Macky Sall et son gang de putschistes se retrouvent isolés comme jamais. Les condamnations des autorités morales de ce pays, et nous avons salué sous ce rapport la voix forte et claire de l'archevêque de Dakar, qui sans aucune réserve possible a dit que ce qui se passe est inacceptable et que la paix repose sur la vérité, mais que la vérité est en train d'être piétinée au Sénégal. Le président Macky Sall a été condamné par l'ensemble des constitutionnalistes de ce pays, à l'exception de ses tailleurs constitutionnels, parce que pour perpétrer ce genre de coup, il faut être aussi de petits hommes entourés par de petits hommes, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Le président Macky Sall a été condamné par la communauté internationale par le peuple tout entier qui est sidéré par ce qui est en train de se passer. Parce qu'à plusieurs et maintes reprises, il a dit de manière non équivoque qu'il quitterait ses fonctions le 2 avril. Mais on savait très bien que c'était simplement un jeu de mots. Président Macky Sall avait une forme de fascination pour les putschistes. C'était quelqu'un qui a le plus élevé la voix contre les putschistes à travers l'Afrique. Et il a agi exactement avec le même modus operandi que les putschistes. Pour ne prendre que l'exemple du Niger. Des ici qui sont dignes des putschistes de dire que son propre camp. Vous rappelez qu'ils ont dit que Bazoum n'a pas pu assurer la sécurité et que pour cela, et qu'il trempait avec les rebelles. Ce que Macky Sall et les gens de la CDAO ont refusé d'admettre. eh bien, lui, il dit que le Conseil constitutionnel, en reprenant exactement les mêmes termes que Tchani au Niger, que le Conseil constitutionnel du Sénégal s'est allié avec son Premier ministre pour agir par corruption et changer ce qui devrait être la liste officielle. Je dis et j'ai répété, que si le Conseil constitutionnel avait pris sur l'affaire Karim Wade une autre décision, c'est en ce moment qu'on aurait pu le soupçonner de corruption. Puisqu'il est établi de manière irréfutable, scientifique, par Karim Wade lui-même, qu'il avait la double nationalité au moment où il déposait sa candidature. Que si le Conseil constitutionnel avait pris sur l'affaire Bachir Diomaye et Cheikh Tidiane ici présents une autre décision, c'est en ce moment qu'on aurait dans de la Parce que sous ce rapport également, il n'y avait aucune base juridique pour exclure ces deux candidats. Donc, où sont les raisons Sinon, comme Tiani, parce qu'il devait partir de son poste de chef d'état-major, il s'est réveillé un beau matin, il a trouvé que le poste était trop mielleux, moelleux, et qu'il fallait être calife à la place du calife. Ce président qui a envoyé notre armée en Gambie pour mettre fin à l'aventure de Yahya Djamé, lui-même s'est mis dans un putsch. Et je vous dis, mesdames, messieurs, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est que la majorité n'a jamais été aussi silencieuse que pour perpétrer traîtreusement un coup. Vous n'avez jamais vu aucun député prendre la parole. Ils n'ont pas osé prendre la parole pour défendre, parce qu'il n'y avait personne d'entre eux qui put défendre. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu du débat. On leur a dit, puisque vous avez la majorité, puisque vous êtes sûr de votre bon Et puisque vous êtes majoritaire, au moins osons affronter, jutons démocratiquement. Ils ont refusé le débat. Aucun d'entre eux ne s'est exprimé. Et ce qui est encore plus paradoxal et plus flagrant, c'est que la base sur laquelle ils fondaient leur argutie, à savoir qu'une certaine personne avait aussi la double nationalité, cette personne a été arrêté. J'ai précisé que je n'ai jamais porté plainte. Mais cette personne a été arrêtée, mais aussitôt libérée ou mise sous résidence surveillée parce qu'il voyait bien la contradiction flagrante entre vouloir libérer, détenir cette personne et ne pas prendre toutes les mesures pour aller chercher Karim Meissawad là où il est parce qu'il a fait deux fois par jour. Voilà la situation dans laquelle on se trouve, et le président Macky Sall a plongé le Sénégal. Alain Ndiaye l'a dit tout à l'heure, il se trouve à côté d'un Premier ministre qui est officiellement accusé dans un document parlementaire, dans le rapport de la commission des lois du Parlement, d'avoir corrompu des magistrats, sans aucune preuve. Et en attendant de fournir les preuves, il agit comme effectivement si le Premier ministre s'était corrompu sans en tirer les conséquences de le démettre, sans que le Premier ministre n'en tire les conséquences de partir, sans que l'Assemblée nationale ne tire les conséquences de mettre le Premier ministre, de déposer une motion de censure contre le Premier ministre. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt de petits hommes et de petites personnes qui agissent avec des moyens de bandits sans avoir le courage d'aller jusqu'au de leur logique. faut pas On a déposé des recours devant le Conseil constitutionnel, mais il faut pas qu'on se fasse Quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, qui n'a jamais brillé par son courage, M. Macky a déjà la parade. Il dira que ce Conseil est corrompu et que je ne tiendrai pas compte de ses avis. Parce que dans la logique des putschistes, c'est désormais la fuite en avant qui lui reste comme seule issue, la fuite en avant. Être dans l'escalade permanente, comme ceux-là même qui voulaient déloger par la force, qui sont dans l'éternelle fuite en avant, les vrais putschistes qui au moins, eux, ont le courage de risquer leur vie, de prendre les armes et d'aller affronter leurs frères d'armes ou leurs ennemis <laughs> momentanés et de risquer leur vie. Lui, il fait risquer la vie et la liberté des Sénégalais. La vie et la liberté des jeunes Sénégalais qui manifestent, qui, qui quand ils manifestent sont mis dans les cachots pour simplement défendre leurs droits constitutionnels. Désormais, c'est la fuite en avant qui reste au président Macky Sall. Et je ne pense pas qu'il faille l'appeler d'ailleurs président Macky Sall, parce que dès l'instant où l'acte de coup d'État est constaté, on ne peut plus attendre le 2 avril pour dire que c'est un putschiste en tant que tel, on doit le traiter comme un putschiste. Et lui qui aimait tant, qui aimait tant les honneurs et les lauriers de la communauté internationale, se voit condamné. Parce que, in fine, c'est ça la trajectoire qu'il mérite. Tôt ou tard, disait Malraux, la vie finit par faire de nous ce pourquoi nous sommes faits. Il était fait pour être un dictateur, pour se retrouver avec ses frères d'armes du PDS d'hier, d'alors. Et c'est pourquoi ils sont en train de préparer le coup d'après, de nous dire que le Conseil constitutionnel doit être dissous pour que le Conseil constitutionnel ne puisse plus se prononcer sur nos recours et le, et le reste. Avec leurs nouveaux alliés, c'est pourquoi il faut toujours étudier avec qui on fait des <laughs> avec leurs nouveaux alliés, qui ont retrouvé une nouvelle virginité grâce aux législatives du PDS, ils vont essayer dans les prochains jours de nous mettre en place une nouvelle cour constitutionnelle pour dire que puisque le Conseil constitutionnel est corrompu, il ne peut plus juger de ce que des recours et tout, tout le reste. Bokki. Donc, ce qui nous reste, Ce qui nous reste, c'est comme le, le collectif des candidats le dit, nous attendons que les... Ce pays n'est pas le pays de quelques candidats. Ce pays, s'il y a des ordres de médecins, des ordres d'architectes, des unions de magistrats, c'est parce qu'il y a une constitution des libertés qui ont été chèrement conquises et que nous devons défendre. Et nous en appelons donc à tous les hommes, à tous les syndicats, à tous les patriotes, aux organisations de transporteurs, au secteur informel, à la République, au peuple, pour qu'ils se mobilisent souvent les formes et dans les délais qu'il faudra définir, mais très rapidement. Mais en attendant, en tant que candidat, nous allons poursuivre effectivement nos caravanes. mbokk ma ma gàttal rek ci wolof dama ne lu xew mooy nga xam ne kenn réerewul mbir ni coup d'état moo xew amoon amoon na peut ñu am laam-laame ba muy jib di naan waaw xëy na conseil constitutionnel nu mu àttee mbir mi jaarul yoon ak damay fàttali ni suñu charte réew moom moo ne conseil constitutionnel lu mu wax amul mënuñu ci def recours te Macky Sall ci la mës a waaye la yi nga xam ne moom la fi teg te nga xam ne ñëpp dàq ko ci tàmbale ci Monseigneur Benjamin Ndiaye archevêque Dakar li mu wax leer na jàmm ci dëgg lay lalu te sénégalais dañu moytandiku saa yu amee jafe-jafe ñu naan dañuy teggi yoon loolu la wax ci ba mu leer ñu nekk am seen xam-xam màcc ci wàllum constitution ci réew mi ñëpp daje ni li fi xew coup d'état képp koo xam ne doomu réew mi te réew mi yitte la que ne nga nekk ci dëgg nga ne li fi xew coup d'état la que président Macky Sall amul lu mu mën a def et j'ai oublié de le dire en français mais je le dis en wolof les putschistes aussi utilisent des termes qu'il a utilisés dérogation mettre par parenthèse la constitution sans le dire par leur délégation ils ont voulu mettre en parenthèse la constitution du Sénégal c'est ça parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas changer l'article 103 de ñu ne par dérogation parce que seen premier ministre dafa ger conseil constitutionnel te indiwuñ ci benn firnde ñu ne donc dañuy daal di dàqal élection yi yokk mandat li waroon xew bu fekkoonte ni ay nitu gor ak ñuy sàmmanteeg seen ngor lañu premier ministre bi waroon na démissionner wala président de la république teggi ndombal tànkam wala député yi def ko motion de censure wax naa ko keroog assemblée nationale ñu daal di bàyyi yoon leeral li xew ci mbir mi waaye du loolu moo leen yitteloon li leen yitteloon moom mooy def lu mu doon reproché moom général Tiani mooy ba mu demee ba mandaam bëgg a jeex en tant que chef d'état-major mu lal ay lala ay layam daal di wàcce président bi fa woon moom it ba mandaam waaree jeex mu lay ay layam daal di ne day yokk mandaam ànd ci nag ay député yoo xam ne keroog ci assemblée nationale amuñu woon sax sañ-sañu ak fit wu jàkkaarloog askan bi wax parce que ku nekk ci ñoom xam na ni ëllëg film bi ne film yi dina fi des vidéo yi dinañ fi des sa taxawaay lan la woon loo tax ñu ne dañuy gàttal débat keroog jooju lañu ñu mës a gis assemblée nationale boo xam ne ay waxtu opposition rek moom moo lay ci question préalable ñu war a dugg ci débat de fond bi ñu ne du am débat de fond ànd ci nag ak waa PDS li li gën a yéeme mooy ñoom xam nañu te ragal nañu lu ñuy def moo tax ndaw si nga xam ne président la république junj na ko ne moom it dafa am ñaari nationalité ñu waroon ko teg yoon dañ ko xaw a jàpp ba mu yàgg bàyyi ko alors que am nañu def lu yées loolu ñu ngi ay ñaari at ci biir prison kenn bàyyiwu leen di leen wax ay détenus ay ay prisonniers ay terroristes ak yooyu am na ñu def lu yées loolu bu dee daw si nag lu muy liñ koy jiiñ wax def na ko dañ ko waroon téye yóbbu ko ci yoon waaye comme buñ ko defee ala kulli alim faw ñu jëli ji Karim Meïssa sawaat mi nga xam ne def ko def defaat ko yóbbu ko moom it ci yoon te soxla nañu PDS pour perpétrer seen coup d'état bi ñu ne kon donc nañu bàyyi ndaw ndaw si wéyal li ñu war a def bu ñu tolloo fii naam dinañ def ay waaye comme ci ñoom dañu nekk ci seen volonté def coup d'état recours yooyu amul du am benn xaaruñu ci séntuwuñ ci benn njeexital ndax d'abord conseil constitutionnel malgré lu mbir mi graaw dafa yàgg waaf loolu mooy réalité bi dafa yàgg waaf bu dul woon waaf kenn du ko sañ a tuumaal tuuma yu garaaw yi bu doon dafa am taxawaayam bu mu war a taxaw te taxawoon ko te ñu ragal ni bu bu ñu defee lenn dina am ñoom lu ñu def ma waa conseil constitutionnel bu gouvernement bi tegee yenn yi dina am lu ñu def bu boobaa kenn ci ñoom du xalaat tuumaal conseil constitutionnel waaye nee nañu bukki bu bu yabee waxabaane ci doxin bi la moo tax préparer nañu seen coup bu nar a ñëw mooy bu ñu demee recours yi ñu ne déet conseil constitutionnel bi nee nañ leen dañ leen a ger kenn mënul sukkandiku ci seen i atte moo tax démb waa wallu taxaw fi nii faw ñu taxawaat benn cour constitutionnel bu bees ngir mën a préparer li nar a ñëw ñu ngi waajal ñoom di wéyal coup d'état bi mooy li tubaab di wax fuite en avant may wax nag li ci des mooy askan wi lan mooy seeni mbir lii du mbirum candidat naam ñun marche nañu dinañ marchaat dinañ wéyal suñuy caravane waaye lii weesu na ay candidat dafa li lu gën a sacré lu ñu gën a lu ñu lu ëpp solo cim réew mi mooy démocratie ak dund en paix ak ku nekk normal ku nekk ñu respectante mooy li Macky Sall bëgg a xott loolu nag ñu ci woo ñëpp muy ordre yi ordre des avocats bu amee solo ci réew parce que dafa am constitution amay loi UMS bu amee solo ci réew dafa am magistrat bu amee solo gis nañu ay réew yoo xam ne magistrat yi dañu taxaw ànd ak peuple bi ci manifestation yi avocat yi ànd ci médecin yi ànd ci mécanicien yi ànd ci syndicat yi ànd ci ñu ngi waajal loolu bu bés baa na ñëpp génn képp ku Sénégal yitteel génn taxaw taxawaay bi nga xam ne c'est très rare ne loolu mooy am mooy lu Benjamin Monseigneur Benjamin Ndiaye def ñu koy sargal bu baax di ni nañu delloo Walfadjri licence am ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax. merci président Alassane Sall, euh, monsieur Maguette Wade.